toujours dans votre acte du jour de ce 7 octobre 2024 Je suis ci Amadou Moustapha Ba dañuy dem ministre de la jeunesse di Pape Malik Ndour ginnaaw nag bi nga De la le sénégalais de la diaspora Nek foofa ci Allemagne daal dina koy introduire, je crois que y a ay leeral ci li nga xamante ni daal mooy yi ñu contesté tay mu jural sénégalais li nga xamante ni dégradation jëmale ko dal ci sen note fofu ci Maudis dal di wacc ci li nga xamante ni daal mooy yi nga xamanteni dañ leen wara a surveiller jëmale sen walu économie nañ déglu ji Pape malik Dour. il faut que il faut que Sénégal. Mmh. ñëpp xam. Mmh. quelles sont les différentes sources d'endettement manam mmh. rew réew suy lekk. il faut que ñu xam fan lay jógee. lépp Sénégal du ñu toog di leb ay mbedd maanaam comme ñun ñu lebee suñu kër yi alors waaw Sadio doo ma envoyé foofu deux mille loolu amul ci état <laughs> état suy leb ah. partenaire bilatéral moo koy lebal maanaam France wala États-Unis wala Canada wala Espagne wala wala wala wala Japon wala pays boo xam ne am na capacité di labal ay borom bu teew loolu nañ ko noté un deuxième chose état suy leb day dem ci lu ñuy wooyee partenaire multilatéral waaw manam nga dem FMI mu lebal la wala nga dem banque mondiale mu lebal la wala nga dem BAD mu lebal la wala nga dem banque islamique de développement ñu lebal. oui. première chose état suy leb day dem sur le marché financier international. oui. moy très souvent li ci gëna xam moy genre eurobond yi nga xam souvent c'est les grandes banques yéen par exemple yéen ñu nek euh, à l'étranger étranger. waaw du ñàkk vous êtes da ngeen souscrire ci ay ay ay ay police d' assurance yoo xam ne des c'est est des c'est est c' est des dépôts à long terme yi ngeen def ci banque yi ñu leen rémunérer à 3 effectivement banque boobu xaalis boobu du ko bàyyi foofu rek di la fay 3 pour cent déedéet day jëlaat même xaalis bi ñu ko dénk mu lebal ko état Sénégal à 8 7 pour cent wala waa 8 8 pour cent sous forme de rebond. oui. bu ko defee moom su lay fay da lay fay li nga ko lebaloon ak sa 3 pour cent moom 8 moins 3 pour cent yi mu lay fay mu nekk 5 pour cent mu moom. Hmm. surtout ñu déggee eurobond loolu mooy eurobond beneen ah. paiement bi am. Hmm. mooy li ñuy wax fii Sénégal fii mooy le marché financier sous régional. xam nga nga dégg ñu ne Sénégal mu ngi def ay bons du trésor wala ay obligations du trésor banques yi ay SGBS ak ay CBAO ak ay wala banque ivoirienne yi tajaloo ne Sénégal dañ koy lebal ci foofu bi ñeent ñooñu ñoom ñooy lebal Sénégal léegi nag man question may mooy. oui. Sénégal su fekkee dañ ko lebal. Mhm. fan la xaalis bi di jaar. maanaam FMI décidé na ne day lebal Sénégal. Mhm. banque mondiale décidé na ne day Sénégal France décidé na ne day Sénégal. Mhm. les banques yi fi nekk décidé nañu lebal Sénégal xaalis bi du dugg directement compte trésor day jaar BCEAO. waaw. BCEAO lay jaar. et BCEAO ku fa nekkoon ku fa nekkoon ci jamono jooju. non non non man waxuma sax waxuma sax BCEAO national de damay wax d' abord BCEAO. Ah, maanaam siège. allez-y. waaw BCEAO bu mag bi laay wax d' abord. nga xam ne ñoom dans le cadre de la surveillance multilatérale. waaw ñoom dañ fi nekk pour réew yëpp. ndax BCEAO lu tax moom muy xool sa dette xam nga lu tax. ndax jour paiement su jotee. waaw. nga wara fay en dollar ba ya CAO muy guiné ay dollar fay. Oh. te dollar yooyu amaana nekkul dollaru Sénégal dollaru hmm. ki la Côte d'Ivoire la. Hmm. bi mu jaayee ci cacao bi wala dollaru Mali la bimu mu Niger la bimu mu ci uranium bi et cetera et cetera donc day dajale xaalisu union bi. fayee hmm. lako donc koku soo leb day xol ngay leb lan lan ak ngay koy fay ak koo koy <laughs> koku day surveiller bala nga déborder day surveiller lolou lañu woyé la surveillance multilatérale. waaw ñoom dañuy xol donc ñoom léegi tey su benn xaalis jógee France. Mhm. wala mu jógee euh, euh, euh, banque mondiale wala mu mhm. jógee suñu banque yii. Ah. wala mu jógee Citibank. day mhm. naan Sénégal jot nga fi benn mille milliards de dollars. Sénégal la waaw mu ne ko lii pour lan la mu ne ko non lii mooy dab bi ma la waxoon. Ah. dab bi ma la waxoon ne maa ngi koy waaj a def. mais yow nga yaakaar ne day jël si boobu rek bàyyi ko noonu daf koy bind fenn. daf koy noté fenn ne la ok. Hmm. ñu toogaa tuuti Sénégal jotaat beneen xaalis bu jaar ba si yaaw mu ne ko ah, Sénégal xaalis bi mu ne déedéet moo nekk 500 milliards yi ma la waxoon ne la maa ngi koy a jot ci Espagne. Hmm. da koy bind fenn. <laughs> léegi nag jour comptabilité dette su jotee. waaw. Ah. ba si yaaw danaan Sénégal Niger. Hmm. Burkina. Côte d'Ivoire yéen envoyé leen seen chiffre ci de <laughs> voilà léegi yow Sénégal dañuy jékki-jékki rek balancer quelque chose BCEAO rek BCEAO tamit comme ay comptable dafee ñëw rek bind ne Sénégal nee na mille milliards lañu am rek doo ko jeex na déedéet BCEAO da koy jël rapproché ko ak moom chiffre yi mu am bu ah. amee ay incohérence da lay recadré mm-hmm. da lay bindal courrier ne la saway les chiffres que vous m'avez donné sur l'endettement dafa am incohérence bon BCEAO soo ko defee Sénégal rectifié donc léegi ñoom mm-hmm. man bi may laaj laaj bi may samp mm-hmm. mooy ñoom bor biñ ne Sénégal daf ko lekk bu ëpp fan la jógee <laughs> li nga fi wax yëpp de dañ ko def ci ay saaku xaalis hors contrôle <laughs> de la BCEAO ñu versé ko xaalis Sénégal versé ko Sénégal voilà mooy c'est une question que je pose ah. j'ai envie de même j'ai beaucoup de questions que j'ai envie de poser man nag xam naa li may wax. waaw parce que bon peut-être Pape Malick ministre lañ xam Pape Malick directeur programme lañ xam mais man ministère des finances laa nekkoon. ah économie sëñ en tout cas. voilà xam naa baax li may wax donc man <laughs> première laaj bi ma njëkk laaj. mooy damay laaj d'abord xaalis boobu fan la jaar. Mhm. ndax BCEAO wala jaar wala jaarul BCEAO te loolu mën nañ ko posé secrétaire général gouvernement bi. waaw. Ah. <laughs> li ñuy wax mooy roadshow boobu ñuy wax. Ah. maanaam soo waree lebi à l'étranger Eurobond da ngay def lu ñuy da ngeen dem nga réunion présenté leen économie Sénégal. Mhm. lan moo tax à namoon donc ñuy impliqué BCEAO. wax dëgg parce boo gis. conséquence bi mooy dina am jamono. Mhm. dinañu solliciter BCEAO pour mu fay parce que devise la ñuy fayee te BCEAO moo yor devise Sénégal. Mhm. yaa ngi dégg Sénégal su ko defee BCEAO xool kenn ngeen di fay ndax boobu Sénégal si lu ñu estimer su ñu defee ay prévisions en terme de réserve de devise bu war a ñëw est ce que méngoo na ak Sénégal capacité yi mu war a am pour mun a fay ñu ne lii soo ko jëlee du baax. donc man première question mooy charge bi fan la jógee ndax su fekkee ne ci banque yooyu la jógee dafay jaar BCEAO. waa xam nga xam nga. Euh, pour allez-y allez-y y su partenaires bilatéral mhm. France la jóge AFD la jóge wala mu jóge waaw wala coopération espagnole wala coopération italienne ñëpp xam nañu ne. Mhm. ñooñu suñu lay lebal. wala BID banque islamique développement dañuy créer souvent unité de gestion du projet. Mhm. compte commercial. unité de gestion du projet boobu nga xam ne ñoom dañ fay su fekkee ne leb la laa de man travaillé naa ci programme bu boo xam ne ñu ne ko liggéey leb la gaar mais bid day topp xaalis bi ba xam fu mu dugg les risques de remboursement voilà yaa ngi dégg mm, donc mm. loolu xaalis bi donc mënul jóge ci bailleur multilatéral mënul jóge ci bailleur bilatéral mm. xaalis bi banque la mën a joge donc te man banque la nañu wax ban banque moo lebal Sénégal <laughs> Sénégal retracé wu ko ñu yëpp ñu on a besoin de savoir <laughs> donc c'est impossible ba loolu man jàpp naa ne

kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay explication lu leer foog sénégalais yi yeewoo Sénégal di xam Sénégal suy lépp source d'endettement boobu fan lay jógee du bokkul ak tey nga toog ak sa waaye nga ne ko yónnee ma foofu 2000 rek mu jàll état du lebee noonu état dafa am ay partenaires yoo xamante ni foofu lay lebee mu sukkandiku ci ay banque moo xam tey ci sous région bi la moo xam à l'international comme ni mu ko waxee États-Unis Canada France Espagne foofu lay Sénégal di lebee ak li nga xamante ni mooy suñu imowa jëm ci yenn banque yoo xamante ni ñoo fi nekk comme tey nu mu ko expliqué xaalis boobu du jaax trésor public fan lay jaax maanaam foofu ca BCEAO muy BCEAO centre nag ginnaaw BCEAO centre nag lépp loo xamante ni jaar na fa tey Sénégal su bëggee jëlaat beneen affaire dañ koy laaj lan nga jëloon mu indi chiffre bi ñu daal di koy noté mu indiwaat beneen chiffre ñu noté ko su ñu demee ba benn xayma kooki euh, tey Sénégal su yónnee chiffre boo xamante bokkul ak chiffre bi nga xamante ni moo nekk foofu ca BCEAO dañ leen di yónnee benn note indi kat ak li fi nekk amul cohérence li ngeen jëloon ci Amérique ci Canada jël ko ci France wala exemple wala Espagne campagne wala ci eurobond yi ak tay ñun lu nekk suñu chiffre amul concordance donc dem leen ngeen rectifier ji donc je crois que tay yaakaar na ni du bor bo xamante da ngay dajeeg nit rek nga abal ma 1000 francs mu jox la 1000 francs amul fu ngeen ko bind amul fu ngeen ko tek amul ku koy constater bañ na sax ba xamal ko tay ji ñi nga xamante ño ñoo nekk foofu ca bitim rew Europe parfois dañuy am ay assurance yo xamante dañ koy am ak seen banque dal di ko fay tek tay su dee assurance bobu ay 3 la la jël banque bi du ko fa bàyyi daf koy dajale dal di koy lebal yeneen rew tek ci ay taux yo xamante ni ëllëg ak ci bir moy 8 pour

bancaire ku ci nekk xam nga yan dossier ngay dugal ak banque ndax day yónni ay expert jëmale leen ko ci li nga leen garantir ndax est-ce que prouvé na leen que lii mën nga fayaat bor bi wala mënu ko fay balaa ngay jot xaalisu banque di nga wax lu leer nañ donc je crois que li Pape malik Ndour expliqué dafa leer nañ est-ce que jaroon na le 26 ñuy dekkati lii nga xamante ne mooy cadre yooyu ba tey mu ñuy jural lii nga xamante ne mooy dégradation jëmale ko daal ci li nga xamante ne mooy notre Sénégal jógee ci BA3 tey ba B1 Sénégal bokk ci ñi nga xamante ne mooy les pays qui sont en surveillance jëmale ko si seen wàllu économie en tout cas nit soo demee bay wax rek danga war a njëkk defaan défendre li nga xamante ni mooy sa réew mais bul xool ay kàddu yoo xamante ni saa yoo ko yëkkatee tey day day nuire li nga xamante ni maanaam mooy sa réew